Euh, na nga def yow euh, noo tudd euh, foo dëkk waxal ci kaw Passy defal ni waxal ci kaw Passy li ñu lay tuumaal ndax yaa ko def li ngay def lu mu doon affaire góor jigéen da nga koy dund nga ko commencé woon dund ba ak fan nga ko njëkkee commencé. Passy. Passy. waaw ah, loolu ba ma nekkee xale su fekkee lañ ko mos a def. waaw lañ la ko def nga continuer di ko def. man ma waaw mais kon ne di ko def di ko def. waaw jii ki ñu la jàppee lan ngeen waxante woon ak lan ngeen naroon a def. dañu waxante woon affaire ba ngeen juboo. waaw après ngeen ngeen ànd. waaw fan laa leen jàppee da ngeen a demoon pour doon ko defi. waaw nga jàpp léegi looy sàkku yow ngir li nga doon def. ngeen baal ma xaq baal ma ko def doon ma ko def ba. ah def yaakaar naa kenn tuumaalu la de. waaw am na waaw. dañ la. yaa ko def sa coobare bopp. ah te du too ko def. Ah? tey jii tey jii la kañ. Euh, tey la 18. ah. waaw mm-hmm. 18 euh, premier mois. tey la talaata. tey la talaata ah. tey la jàpp. la talaata ah. le dix huit. janvier janvier deux mille vingt deux. fii ci Touba. fii ci Touba leer na. leer na waaw baax na bu ñu la bàyyee léegi nag ku daamul xadim da lay génnee Touba leer na. sa mag bi nga wax nga ko lu leer. nga jël say bagage nga dem.